avance loolu rek ñu ñor amuñu doole nag amuñu ku ñu jàppale mais dañoo bëgg àddina Sénégal nañ ñu dégg xam ne maire bi nii lañ def toroxal ñu ñun ñëpp ku ñu mën a jàppale na génn jàppale ñu ñun ay maire de famille lañ ñoo yor sunu kër yi boobu ba léegi yalwaan la ñu sant ndax boo dàqee ay nit amuñu lu ñu fayee seen location amuñu lu ñu dundee dañuy dem di yalwaani ji wala ñuy dem di def lu bon te loolu ñun ñoruñu sunu liggéey moo ñu ñor dañoo bëgg a liggéey

Hey, Jimmy. Hey, Apa yang sih Je présente Omar Gueye. C'est bon. dëkk Oum Soum. donc dañuy nuyu ci nekk turam ak santam. di suñu yaay yi nga xamante ne ñoo ñu tax a def fii avant tout dañoo ñëw pour tey jii wax leen tey jii jafe-jafe yi nga xamante ne tey jii ñi nga xamante ne ñooy agent wu mairie Golf Sud ñoom la ñu dans un premier

ay soutien de famille. dëgg la raison raison pour laquelle combat bii nii nekkul combat wu politique mais combat citoyen ci loolu nag ñu taxaw pour wax tey jii li nga xamante ne moo am ci golf sud bi waa golf sud xam ni seen maire bi ñu fi teg dafa ñëw pour pare xettale waa golf sud ñëw ñu nag pour wax rek pour wax nii pour sànni ndax tey jii koo xamante ne dafa am décision kayit yi dinañ leen ko wan yéen journaliste illustration ndax tey jii nu ñu jël tey jii xam nga damay def si benn historique tuuti ngeen baal ma ndax euh, ñi seen contrat mille 2019 la tàmbali boo xoolee percepteur madame le maire bi nga xamante ne moom la si remplacé mu Aïda Sow Diawara moo defal ñi contrat bi nga xamante ne loolu yëpp mu toog day audité on n'a pas refusé bañu ñu mu audité mais on peut auditer tout en continuant la travail

dóor doom làq doom gis nga nag euh, euh, naan ma fay ñu ma fay ñu seen location ñetti weer trois mois fay ñu leen ko tey ji loolu dafa doon loo xamante ni dafa dafa raison pour laquelle nous interpellons la population de Golf Sud ñu xam ni juum nañ kii nag lañ nar a wëyal ci juróomi at ce qui est grave juróomi at ñu nar a wëy moom muy jël suñuy yaay suñuy rak suñuy xarit suñuy doomi ndey dàq leen

sant di leen wax que ni ñun jigéenu golf yi dix ans ñi ngi liggéey ci mairie golf bi ñu fi gën a tuuti li ñuy liggéey sept ans lañ fi def Khadija Mahécor ba mu ñëwee premier chose bi mu def trois mois sans salaire mu dàq ñu ñun ñëpp indi fi ay nitam teg leen jour bi ñuy dàq jour boobu la indi ay nitam teg leen kon ça veut dire que ba mu jëlee mairie ba tey dafa toog di jël ay nitam pour indi leen sunu place ndax jour bi ñu ñëwee di jël sunuy notification jour boobu lañ fekk ñu remplacer suñuy place nangu ñëw fay suñuy salaire waxul lu ci jëm dinaa leen fay ñun nag tooguñu nii rek suñuy këyit yëpp dafa nekk ci yoon ndax dañoo liggéey ñun ñëpp dañoo liggéey boobu ba léegi ñu ngi liggéey dañoo am contrat deux ans ba ñu amee contrat deux ans madame la maire ay Sow Diawara mu fi jógee woo ñu réunion ni yoon moo ko may ni nañu defal ay embauchement kon ay décision la lañuy defal kon moom bu ñëwee warul wax ni suñuy décision du ko jël ndax ñun ba ñuy ci mairie bi nag moom mi ngi këram toog ñun mairie bi mooy sunu kër mooy sunu lépp amuñu lu dul mairie bi la preuve ay nitam yu fi indi ñi ngi nii mënuñoo raxas duus yi mënuñoo liggéey ci hôpital yi mënuñoo bale mbedd yi ñoom ñëpp ñi ngi démissionné te loolu nangu koo accepté ñoom ñëpp ñi ngi démissionné ñun ñi nga xamante liggéey bi ñun ñu ngi koy liggéey 10 ans xam liggéey bi bu baax lu tax mu bëgg ñoo toroxal ndax lan affaire politique ñun politique ñu politique teguñu fi